Kii nak, fi indi tey? Yaay opitaal lañ jugee, dañ laa soxla waxtaan. Dëgg la, dëgg la, dëgg la maman. ko waxee noonu la demee opitaal lañ jógee mais lu jiitu loolu yàlla dafa dogal ma xamante ak Ine muy ku baax yàlla yàlla am lu mu dogal sama diggante ak moom li fi am nag du ak mbonam du leen loo xamante ni war nañ mën a tax ñu ni moo tax mu am waaye xëy na dañ koy teg rek ci yàlla suñu borom bi dara teewul moom moo ko dogal waaye du ak mbonam ndax ku baax la te itam du mu ko fekk mu fees del maa ngi jégalu sax ci kàddu. Eh, xam nga lu ma la yëgal damaa bëgg sa wiiri wiiri bi nga arrêté ko li la fi indi tey laa bëgg nga wax ma li ngay wax ni yëpp xam nañ ko ba pare wax ma lan moo fi say tànk tey. waaw maman dëgg la dëgg la ni mu la ko waxee ci njëlbeenu waxtaan bi dañoo dem hôpital bi ñu demee hôpital docteur bi xool ko bi ñu ko xoolee gis ni Euh, affaire bi ñu ngi avancé mu laaj ma ndax yow yaay borom këram ma ne ko ah en toute sincérité bu dee bëgg rek nga bëgg a dugg takkaguma ko mu ma ah loolu est-ce que du indi benn jafe-jafe ci wér-gu-yaramam parce que kat moom daf di dafa dafa war di soxla góor maanaam ku koy fanaanoo ma ne ko ah ba takkuma ko waaye am na kilifa kon dinaa waaxu ba ci kilifaam ma laaj ko ndax dina bëgg may may may may gisanteeg moom léeg-léeg di fanaan moom léeg lekk Euh, am na sax baat bu ma wax ba ma ba ma àggaleel ko ko man xaw ma ko ci français mais man bu dee ñun olof feccali la ñuy wax quoi mu ne naa ko naa ko naa ko naay feccali bu ko defee eh, eh, bu am eh, doom mu yomb ndax wér gi yaramam moo tax. yow doo ma dëgg yow ñàkk nga kersa te réew de yow war ngaa toog fii tooñ ma ba pare yow sama naqar ji fagul nga toog fii naan ma ay médecin nee na ma feccaleeg ma doole. waaw pour état de santé yow eh wax nga may tontu de man du ma sama yow say waajur kenn yaru la. ñàkk nga kersa. dégg nga li ma la wax. ñàkk nga kersa amoo yar te mën nga tooñ. man nag du ma sa morom booy ñëw fii naan ma non c'est-à-dire ah. médecin bi nee na ma fii la xar yi jaar et fii ngay jàkkaarloo man naan ma feccali. gis nga man bu ngeen amee seen ñàkk kersa ak seen réewal bi sama kër gi ngeen koy defee. waaw kinne ba muy génn di la fekki ba mu koy def li nga koy def xam ngeen ne da ngeen maa jëw. waaye tey ma dem ba am ci lu ma leer yow nga osé ñëw sama kër naan ma ay médecin na naa feccale kay état de santé am xoolal bu ko dee rey ma xam ne yow mal xiyaam lay fanaan. yow maman man eh, eh, ku ma tontu. du dafa ñàkk fayda moroomam yëpp toog fii ñu leen may ay may gu njëkk ay un million ci cinq cent mille moom muy ñàkk fayda di tontu ci Samba Surabaale bu mel ni yow ñàkk nga kersa amoo teggin toog fi naa ma wax waxi feccali ku yebaate nga waaye man awma lu may wax ak yow moom su ma paree dinaa wax ak moom ndax yem maa mu def ma li may def pare tas sama yaakaar wëlbatiku di la indi fii ngeen may wax feccal. maman eh eh wuy ma wuy ma. Hmm. jógal hmm, bëgg naa ko takk eh, aussi. jógal jógal génnal sama kër ci biti. mais euh, sa yaay parce que feccal bi mënul ñàkk. Hmm. waaw baax na. baaxul ci état de santé. eh ci biti. ci biti laa. booy jogal tuuti mama eh, Tégal astafurlah père man judit laa Moustapha laa tudd. papa man Moustapha laa yow amul laa ndax boo nekkoon doomu jullit da nga xalaat doo ko wax yow yàlla mu ngi la toppee téeméeri yar yoo xamante ni am nga muy njaaloo xanaa xamoo ni nga sëy akombin takkoo ko bu dee amoo soxna dèjà yow yàlla am nga ko téeméeri yar yoo xam te ne dañ la ko man mi yo bu doon da ngaa am soxla nag yow dañ lay rey dèjà. Hmm? cadavre ambulant la. ba pare nga ñëw da nga koy fecceel. waaw. non diine diglu ma. na nga yoo jàllale ak moom it am na téeméeri yar yu ñu lay topp. même bu ngeen tëddee nga yulee ko nga tëddaat ak moom ñaari yar mu lay topp. xam ngeen yàlla ay xale yu ndaw di caaxaan njaaloo baaxul dafa lay delloo ginnaaw yow itam ku ñàkk fayda nga yow ngay xoole sa bopp bañ lay ëmbal mën nga dem. dañoo bëggante rek papa maa ngi jégalu. yow tamit yow laay wax nit boo amee sa doom dangay xam ni kat sàmm nga ci moom ëllëg yow man fi am yàlla dina naan kii nii mii woon taloo dara lu dem natt avec ak say mbir bopp xamoo ba xam kii ne mu ngi jàng xamoo ba xam mu ëmbam bi am nga ci responsabilité bi yow itam ku ñàkk fayda jigéen day sàmm awraam lay xoole ba koy joxe ci àll bi bu la bëggee dañu ñu may la ko danga lu mag ci kër la woon. lan mooy erreur erreur ñu simbale ma nga seet futti la dan sa nga naan erreur la ana jaaloo erreur boo toogoon fit na ne biiram ëllëg yow man kii ab pare. mais boo fexe ba mu daal sa kaw encore yàlla na defee beneen bàkkaar bu dul boobu. waaye docteur bi déglu ma wax la. Eh, docteur oo. gynécologue oo yar fekkee li woo rootoo toogal booy dee nga dee wasalaam dëggu ma bàyyi sa naqari deret bi kii magum jëmm la xam na lu baax ak lu bon damaa mën fu ma dem. gàllankoor lan moo tax doo ko woo di ko conseillé xam kan lay àndal. kii ñaata yoon ñàkk de moo tax moo def li muy def kii fu ma toll maa ngi ci ay. daa mel ni yaayam rek moo tax. ah. ni yaayam kay. daa mel ni yaayam. yaa ngi bëgg a exagéré. nit sa doom da ni nga eh, ko. doom yow sama kër ah, yi tax ah. ndax nii nga ko moo tax. loolu nga defee. yow la ku ma yeb rek yaa tax ku ma xas rek yaa tax yaa ñàkk jom yaa ngi tax ba kii di ma dépassé ndax yow kinne lan nga manqué kinne loo bëgg ma taxaw ci li may dang-dang yëpp yaay borom lan la waaj yi defal waaj yi ñàkk keesa ji toog naan da lay feccal kinne ba ci sëba bii nga teg maa la ko jëndal yére boo sol maa la ko jëndal kon kii lum la njëriñ nga dem di ko jox sa bopp rek na la njëriñ kinne yow lan mooy kinne bu ma waxaat ngay wax de kinne billaahi su ma waxaatee nga wax téléphone bi sa kanam gi lay dal docteur bi li mu wax nag eh, ci biti jógal kinne mënumaa toog yow ci saal bi jógal docteur bi wax kinne <laughs> yaa na bi moom moo ni faw mu feccale ndax sinon baaxul sama wér-gu-yaram feccale bi moom dina am si nii wala mu am si nii. Mm. kon da ca biti lay doon waaye di doonee sama kër kii moo ñàkk jom waaw man damay bëgg a waar wala lan xale bu ndaw xonk tey toog fi di wax ay waxi feccale jamono de toj na léegi de da ngay jur sa doom mu wow bët góor ba pare wëlbatiku ne la xeemu nan la feccale day am ay man ne fii